salaamaaleykum mbokk yi topp 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission jotaayu jànkat yi jotaayu jànkat yi nag ñu ci dalal ñi nga xam ne ñoo di jànkati xasida yi tey ji ñu daal di dalal Serigne jàpp mbay Serigne Ndiap Mbaye bokk ci ñi nga xam ne ñoo di jànkati xasida yi ñu daal di fas yéene ànd ak moom jotaay bi Serigne Ndiap ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan wa inni a'uuzu bika wa zurriyatahaa mina saytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahdurun barke borom Tuuba barke Sëñ Fallu barke sëñ Cheikh mi Mbacke ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad ñaanal sëñ taxa moom sëñ Basiiru mu yàgg fi lool te wér ba li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu àggale ko taagale naal yi di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa Cheikh Ibra suñ borom bàyyi ko fi moom it ba li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh lépp mottali ko ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel émission bi di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm Ah, waaw jërëjëf Serigne Diap ci nuyoo bu matale boobu ginnaaw bi nga nuyoo tamit comme que jotaay bi day jotaayu jànkat yi ñu bëgg nga daan ñu yëkkatil ci xas day ba pare ñu soog a dugg ci biir jotaay bi. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman اللهم يا سكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واذكر جميع أحمالي وارفعها إليك قالسة مقبولة آمين سكور رافع شكري لرب كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سيدا وسكارا وسكارا وجهت وجهي في سهر النبي سنادي للأكرم الرافع الواب سكارك رجوت منه طه لا سوره أمالي ورفع اليوم عني نحم خفارا رجوت أن يمحو سالات جملتي أني وتصير لدار كفارا إني أقاتبه في البار مقربا ولم يزل جل خارا وجبارا فجاتني ربي بالآلاء خمليا أن أعاد للبر ردلي كل من بارك على النبي صل بتسليم بالكرامات وارفع وسن يا بدر أبكارا على النبي صل بتسليم بالكرامات وارفع وسن يا بدر أبكارا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 xaayira fi laa màgge fi laa yaroo euh, di jëmm joo xam ne nag taalibeeb sëñ tubaa la buntam ci sëñ tubaa di sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom sëñ fàllu nuy jëmm joo xam ni nag sunu yëngoog sunu dal yëpp xasaayit sëñ tubaa yi la manu xàmmee sunu loxo nday joor sunu loxo càmmooñ ba naga ni ci xaside yi rek la nekk génnuñu ko. Mm. Mm-hmm. Ah, waaw njàngum xasaayit mi moom mën naa ni danoo xàmmee rek seen suñ bopp ci biir xasida yi waaw mun na fàttaliku nag kañ lañ tàmbalee jàng naan danoo xàmmee suñ loxo ndeyjoor rek suñ loxo càmmoñ daal xam ni moom ñu ngi ñu ngi jàng xasaayit mhm. waaw naka tamit nga def ba dugg ci da nga ko doon maanaam da nga bi ngay xàmme di ci dugg danga ko doon fomentoo comme ni ko nay def liñ naan looy bëgg di ko doxe wala waaw xasida yi nag li ñu ci boole mooy yàlla dafa dogal ñun sunu famille bi ñu bokk bi ñu xàmmee danoo fekk sunuy mag di di jàng xasaayit ku ci demee ni Serigne Modou Mbaye ak sëriñ Khadim bi ñu xàmmee ñoom la ñu fekk ñuy ñuy ñuy jàng xasaayit mm. waaw daanaka sunu kër moom képp ku fa juddoo rek moom xanaa nga dem ba màgg dem seet dem yëngu ci leneen mm. waaye moom boo xàmmee mm. xaside yi moom mooy moom ci ngay foye mooy doon sa yëngu mooy doon sag dal mhm. waaw. ak ak doon la ci yéen seen papa da ko doon def wala daal da ngeen ko yéen seen seen ki dañ seen famille dañ koo bëgg rek nekk ci. waaw sunu sunu sunu waayu juru góor daawu ko yëkkati nag mhm. waaye moom daan na ko durus daan na ko durus bu baax a baax a baax mhm. daawut yeewu nuyu kenn te jàngut jukkib xasaa itam ba noppi bu dee wàllum doon la nag bu dee xasidee ni doon la moom. ci sunu maam ji nga xamante si ni moo jur sunu waajuru góor woowu muy sëñ Abdoulahi Mbaye rabbi karimun mm-hmm. man xam naa ci moom lañ koy doon ndax fekkoon ay jamono na nu na ànd ak sëñ mm-hmm. mu mosaan a dem gane ji fenn mu di ko yëkkatil xasaayit mm-hmm. waaye doon doonu ko defee comme ni ñu koy defee comme di wër di jàng nii. Ah. di amay programme yooyu waaye daan na ànd ak sëñ Fallou daan ko yëkkatil xasaayit. Ah, daan ko yëkkatil. Ah, wax nga dëgg léegi tamit boo ñu bëggoon wax tamit kan nga kan doon àndal di ci door. waaw man nag bi ma yàlla dogalee ma xàmmee ne ci xasaay bi sëñ Ousmane Diouf daf daan ñëw suñu kër. di ànd ak sama mag sëñ Xaadim Mbay yàlla dogal ma bëgg ko lool ba umma ci moom sago. maa ngi koy nuyu bu baax moom it. di ko siyaar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal suñu borom àggale yéenam ci xasaay di sëñ Ousmane Diouf moom laa dem ni ko damaa bëgg ñëw di ànd ak yow ci xasaay bi. di topp ci ginnaawam. Mm-hmm. ah kon sëñ Ousmane nga daan àndal. waaw moom laa daan àndal waaw. Mm-hmm. Mm. léegi bi ngay ànd ak moom tamit da ko roy ci air wala da ngaa yor sa air bi may ànd moom moom mi ngi roy sëñ Xaadim Gueye. Mm-hmm. boobu amagut boppam. boobu lim daan jàng rek laa daan jàng. ba ni yàlla dogale muy jàng air boppam mooy roy ay airam. waaw léegi bi nga ànd moom tamit danga nga jékki beru wala da nga toog tamit ba mu ber la nga beru. waa dama damaa ànd moom nag ba ba am ngërëmam mu woo ma ñaanal ma yeewi ma waaye nag terewut ba tey jii fi may wax ak ma ko jot gi maye bu dee jàngi damay bàyyi yëpp dem dem dem awuju ko waaye nag dama topp ci ginnaawam ba mu woo ma gërëm ma ñaanal ma yeewi ma. Mm-hmm. waaw sa njàpp bu ñu bëggoon wax tamit njàng ñaata son nga ci génne. ñaata son. waaw comme kaset comme waaw. waaw de benn laa ci defoon 2012. Mm-hmm. waaw. Mhm. waaw kaset yooyu est-ce que mën nga ñu cee yëkkatil ci eh, kii noonu njàng bi nga ci jot a noonu. ma ci jot a waaw bisimilah. um nga lambi soodaan noo ngi lay siyaare um lambi

sëñ Fallu bismillahi may ñaan yàlla mi di raxmaan xel mu jub ba soo daan déglu way wi maare rahman soda Fallu ku yàlla baaxal war na war na waaju am war na waaju am xel dem sa xol añaanul doon ku reere sëñ Fallu mbër mu mel ni jiwaay duñ ko am di gàccaay sunde bet du naax saay moom la nuy xawaare baayu seex murtala sunde bet du naax saay moom la nuy xawaare sëñ fallu fallu laay wayalu toog fallu laay doxantoog fallu laay xerantoo ñi ma xeeb ba may raak wayantoo doxantoo lentoo ñi ma xeeb sëñ fallu fallu

dajeek bekkoor bee réew mi laf ba xiif bi tar ba mag ñu reeraat mi toog ci jal bee da dajeek bekkoor da dajeek bekkoor bee callu ñépp naan ko Mbàkke yow mi xew te tekeek o ngi ñaan nga teggi fitna ji fi joore loo ngi ñaan nga allura muras le dem naa xim ni mengu dootul del si mbàkke yaa sañ li di say joloore muras le dem naa xim ni mengu dootul borom dinde dinde sëñ Fallu moo defal muridi jàmm jéeg yu neex yi moo waral murid yamal na xaaral sëñ Fallu Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke ku sopp sëriñ Fallilo moo defal muridi jàmm jeg yu naaxi moo waral murid yaa mel ni ñu xaarak bàyyi Cheikh Modou Bousso Dieng bàyyi Alaaji Baara sëñ Fallilé pis yu far yu ñuy sol Mbàkke yaa nu koy jal ko ci gis la muy sol lépp day wala rek bay sëriñ Basiru bay Cheikh Abdou Fatah bay Cheikh Murtala sëñ Fallilé néegi ñax yi dem nan tax yu far yi ñëw lan léegi sax dañu jël ay ganaar di reere bayu Cheikh Abdou Karim bayu sëñ Tako Mbàkke bayu sëñ Cheikhoum bayu soxna Asu Fallo baaxe léegi ñax yi dem noon tax yu for yi ñëw noon léegi sax dañu jël ay ganaar di reere tayu for yi ñëw noon ay ganaar di reer ah jërë ngeen jëf sëñ jàpp ñu daa di koy gis tamit ci olofal bu am solo boobu mu daal di koy yëkkati jëmale ko ci sëñ Fallou eh, olofal yi comme que da nga ko ci ndax yaay bindal sa bopp wala waaw mën nag commencé gu ma bindal sama bopp olofal ah, dañ lay bindal waaw bi dañ bindoon boo waaye ko bu yàgg rek ah. eh, kan moo lay bindali olofal wala mën nañ ko xam waaw man nag xanaa damay dégg waay wu neex rek ma ma ma ma ma fent waaw ma fent ci air. Uh-huh. jàng ko uh-huh. waaye amaguma kenn ku may bindal fa fan. Ah, jërëjëf sa njàpp loolu am na solo ah, boo ñu bëggoon wax sa digganteeg jàngkat yi eh, gan jaxasoo nga am ñoom. waaw sama digganteek jàngkat yi moom. Uh-huh. ñi nga xamante ni yàlla dogal nañu jiitu ma ci xasida yi di sama mag. ñëpp jàmm ak salaam rek laa seq ak ñoom. Euh, nuyu samay mag di samay jëwriñ ca xasaay di la ko tàmbalee ci sëñ Fallou Ndiaye moom sax ma naa ne sunu baay la. wàcc ci sëñ Abdoulaye Seck sëñ Xaadim Guèye sëñ Abdoulaye Diouf ba ci sëñ Xaadim Guèye ak sëñ Cheikhouna Mbaj moom nga tudd léegi ak sëñ Bàcc Diop ak sëñ Ousmane samay xarit lan waaw ñi nga xamante ne yàlla dogal na ma tolloog ñoom ay at. ñoom it mm, kasaalika naka noonu. ñi nga xam si yàlla dogal na ma féete leen ak magit ñëpp samay xarit lan bañ naa ko ba fun ma fekk ci jotaay moom fa ma fa ma nekk rek fa la ñu ne. Mm-hmm. ngir relation bu rafet bu nu bu yàlla boole. Mm-hmm. Mm. waaw wax nga dëgg jërëjëf bu ñu la doon laaj tamit ci ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi yan relation tamit nga am ak ñoom. politiciens yi politiciens yi xanaa amoo ci kenn relation. amoo ci kenn <laughs> est yi xanaa kon amoo ci ñenn ñoo xam si ne tey jii dinañ leen di jàppale ci li ngeen di def de xanaa. waaw xëy na am na ci ay jàngkat yu ñoo xam ne am na ñu leen di jàppale ci wàllu googu waaye man de wax dëgg yàlla. amoo euh, kon est-ce que Sëñ Jàpp bokk na ci euh, jàngkat yi nga xam ne ñoo ngi taxawal bis. bis waaw bis nag moom. taxaw taxawal guma ko nag waaye nag maa ngi koy bëgg. Mhm. waaw maa ngi koy bëgg ah, yaa ngi koy bëgg. Mhm. Jàpp boo ñu doon wax tamit eh, yan projet nga taxawal pour dëgmal ko jëm sa kanam. waaw projet yi moom moom ñoo ngi ciy chaque jour. ndax nit moom lépp lu muy yëngu rek euh, waxtu yàlla sàkk rek war nay jóg di dox ci loo xam si ni moo koy jëmee jëmale kanam ba tax na ñu ngi koy procès ñoo ngi waajal euh, cassette boo xam si ni incha allah bëgg nañ mu génn ci màggal gi bëgg nañ koo defit vidéo incha allah rabbi ñoo ngi ciy def ay jéego. waaw ah, sëñ bi nga jot a yëkkati moom moom nga génne woon. moom laa génne woon lu diis la mhm. yaa ngi doxaat pour jëm ci yeneen. waaye maa ngi doxaat pour pour génne beneen beneen son. Mhm. bëgg naa ko defit vidéo incha allah. Mhm. waaw sëñ Diapo est-ce que euh, yéen ngi def ay tournée internationale kon ni ko yeneen jànkat yi di defee. waaw man nag sama tournée moom ci Afrique Afrique lay mais demagu demaguma euh, ci monde euh, kii monde bi. mais Afrique Afrique daal. maa ngi maa ngi fay génn léeg-léeg di fa def ay programme waa euh, dañuy gis ne yéen jànkat yi tamit dañuy dégg ñu naan comme tey ji da ngeen di faral di euh, wut ji passeport. Hmm. da di xaw a di jafe lool est-ce que yow bokkagul nga ci ñooñu nga xam se ne yéen a ngi dox ci lool wala. waaw man nag loolu moom dox doxaguma jëm ci waaye nag dégg naa ñu koy jàmbat. Hmm. déggi naa daal pour bu nu amee passeport dem di wut visa pour tukkeeg yooyu. Hmm. day xaw a euh, diis lool. kon daal visa kon ko jàngat yi waxee yombut. waaw ah, yombut yombut ci jàngat yi de man naam nag yomb na ci ñeneen ñi yëngu ci leneen. waaye jàngat yi moom visa jafe na ci ñoom lool. bëgg na nag leen ci dimbale nag ndax liggéeyam Sëñ Tuubaa moom daa yaatu. te war naa dem ba ba daj daj na àdduna sax. waaye xasida yi moom képp ku koy yëkkati rek. war ngaa dem ba fépp fu sëñ bi toogoon bind ko rek nga taxaw fa yëkkati xasaayit. Hmm. waaw xanaa nu sant sant yàlla rek. julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sant sunu ñaari di ñaan uh, li ñu suñ boroom may nu àggale ko uh, di rafetlu bu baax nag uh, dëgg yàlla woogee nga nu woo ci jotaay xaside yi ndax nit moom bu yàlla dogalee ab yëngoom mu jëmale ko ci sëñ bi ngay def émission jëmale ko ci jànkatu xaside am xelam daj daj daj la nga woog ngir mu ñëw teew teewlu am lu am ci mbégte rek xanaa da ci ñaanal rek sëriñ bi defal la ci fi nga bëgg rek émission bi àgg fa. suñ borom àggale ko fa. di ñaanal uh, télé bi yàlla ko suñ borom ful. ba mu àgg mboolem fu fu faab mu saag. barki xasaay di. di doole ñaanal bu baax sëñ Muntaxa mu gën fee yàgg lool te wér. di bu baax sunu bunt ci sëñ Touba sëriñ Seexu mi mu sëñ Fàllu moom it. suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di ñaanal sunu waajur yi nga xam ne moo fi ne. di sunu waajur wu jigéen suñ borom bàyyi ko fi ba li ñii ci moom lépp nu mottali ko. sunu waajur wu góor wu jiitu ji na ko suñ borom yërëm te dolli koy leer. ak xasaay di ah, waaw comme ça li ma doon la bëgg a laaj léegi pour ma dellusiwaat ci mooy yéen hmm. jànkat a hmm. ah, hmm. la bëgg a laaj kon tey ji boo doon leen dénk lan nga leen la bëgg a laaj waaw li ma leen di dénk moom dama koy tàmbalee sa bopp sama bopp bu a yi moom am fa moom euh, warut warut benn doomu aadama ndax àdduna moom suñ borom andi wu fi kenn ngir nuy fo. Mm-hmm. waaye nag rawatina ñi nga xamante ni ñu ngi leen di séntu ci lu baax. Mm-hmm. ndax xasida moom képp ku ci def buñ la ci tudd rek nga cee góor góorlu bu baax a baax baax sa mm-hmm. kéemtulaay kattan. Uh, ba lépp loo xamante ni lu lu xeebee nit ku baax la rawatina jànkatu xasida ñu bañ la caa gis. góorgóorlu ci sellal ko. sellal jëmm yi sellal xol yi. sellal njàngin mi am na ci solo lool. waaw jërëjëf sëñ Ndiap Mbaye tey moom lañ dalaloon ci li nga xam ne moo di émission jotaay jànkat yi ngeen daal di dégg tamit xasida yi yi nga xam ne hmm. yëkkati na ko ci biir jotaay bi mu àndoot ak ñi nga xam ne ñoo di ay awkatam ñu leen di nuyu bu baax a baax di tàggu ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan ci 24actu point com duñ fàtte ñi nga xam ne ñoo di suñu cameraman yi Cheikh Ndiaye mi nekkoon ci cameraman ak ke euh, nuñ ko waxati Serigne Saliou ak Khady Niam yi nga xam ne mooy monté jotaay bi ñu koy sant baax di ko gërëm di leen jox dig daje ci beneen émission jotaay yi xasida yi sëñ Ndiap ñu bàyyi la nga yëkkatiwaat xasida yi ودار سنة ومن جل من بدار دار سنة ومن جل من بدار من بدار ودار سنة ومن جل من بدار دار سنة فوسيني ودار سنة ومن جل من بدار سنة من بدار ودار إقلاس وصدق ووراء ودار سنة ومن جل من بدار إقلاس وصدق ووراء ووراء ودار سنة ومن جل من بدار وادل الخير من الجيات أستي واكفيا عن الآفات صدق وورى ودار سنة ومن جر من بدار utni anni saytaani ajalila wa maskani wa kullu ma awala ya jalilu ya jalila wa maskani wa kullu ma awala yàlla في سوى سلم رك يا فايخا خلق من بالخور يا سلم رك يا سلام لي يا فايخ الخلق من بالخير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد نفسي وديني ثم بابو ثم ديني sama ñooñ sama doom lépp yaay borom lépp yaay borom waxa kasa dunya yama oxraya fafi ma alisir fir rasaya kasa dunya yama oxraya فيما الاسرف الاسى سنبني واصرف اسى بلار عن جملة من بيتعلق بلا ما يسمى الله عن جملة من جملة من يتعلق ما يسمى الله بنا وجملة الإخوان من أقارب في دين أو في دين والأجانب وجملة الإخوان من أقارب في دين أو في دين والأجانب سجبنا فليكن إذن وضبا يا زمن فليكن تغنني ولا تكلل الأحد إذن ربنا يا سماء تغنني ولا تكلل بني ورعم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا أم جميع المسلمين مسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا مصطفى على محمد وسيلة لك اليا مطل الختام عندك محمد وسيلة لك محمد الياء الختام سيدنا محمد على محمد وذلت لك الياء الختام عندك عبد الله بايم أمينة يا سيدنا محمد سيدنا محمد مصطفى والتزري صلاة نساء أنا لي وعلي الإجابة لسابة لسابة أنا لي وأبلي الإجابة مصطفى والتزريم زلات لسابة أنا لي وأبلي الإجابة تزريم زلات لسابة وذهب سابا واملي الجبا ادي سنتوبا